hayu 18 la fuk ak juram ñett la ha ah? hayun fuk ak juram ñett la haba 8 la yaba 10 la 10 ak 8 ñaata la 18 18 fois 18 mu jël la 324 moy que salatul fatiha wallahi mota benam gegn na julli salatu dul mom ñaata xaq moo ci nekk bil xaq muy ñaar xaq qadri muy ñett xaq xaq bu 108 la 108 fois 3 mu jox la ñaata 324 mooy wa kalimatullahi al ulya lu yàlla rek ca kaw bu ñëm ne woon ci suuf te yàlla na ca kaw ci kaw ngay ngeen wirdu ko ngeen ci ilaha illallah lu ngeen sumb dana sotti lu ngeen jéem dana ant lu ngeen dog yàlla may leen ci jàmm kon jant bi soowagul ku ko yàlla mun loo bu ñu nga def ko 332 yàlla na ko yàlla barkeel te ah 300 324 maa ngi jégal 324 324 te 324 boobu mooy caabi àddina ci du yàgg dara boo bëggee jot Sénégal da nga ne 00221 ah. bessa ñew lepp luy ubbeeku ci adina 9 mo koy ubbe mom la yonte bi du nom 63 ans 3 axis, 6 9 ah mom la abubakar dundon 63 ans muy 9 omar lolou la dundon muy 9 aliou lolou la dundon muy 9 yalla genné ousmane mu dund 83 ans kon 63 bu yonante bi 63 bu abubakar 63